aywa Marcel Farba Maroun maa ngi lay nuyuwaat. di la nuyuwaat euh, mbokku téléspectateurs yi. Marcel tey da ngaa tànn wax ci benn actualité euh, ci loo xamante ni sax fan yi ñu ngi koy waxtaanee waat bu baax a baax ak nit ñi ñuy faat. c'est ça donc euh, loolu waral sax d'ailleurs ñu euh, nar a gëstu déjà faire euh, un petit récapitulatif ci li nga xamante ni moom la ñu jot a dund notamment ci week-end bi passé donc aljuma bi passé Kiné Gaye donc gérante d'un service ci Pikine ñu daal di koy jam paaka lu toll ci 37 fois bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom mooy déclaration aveu ki nga xamante ne moom moo ko daal di def gannaaw nag ba ñu découvrir benn manquant d'environ 2 millions de keesu entreprise bi euh, superviseur am bi euh, ci boobu boobule entreprise ñu gën ko xamee ci EMS mu tudd mu Ba euh, moom daal la ñu jàpp ne moom moo nekk à l'origine de ce meurtre ba pare daal di sax fexe ba somme boobu daal di manqué ci ci kees yi loolu mooy lien wu meurtre bi donc loolu waral mu faat kii di Kiné Gaye et puis samedi 21 mai 2022 Papignan mi nga xamante ne daf dañ koy daal di faat moom tamit foofu ca Wakam gannaaw bañ ko moom tamit jamee paaka à plusieurs reprises euh, dans une bagarre donc ñuy euh, fàttali que euh, Khassimou Ba moom yoon def na li war en tout cas takk der yi jàpp nañ ko et puis Papignan tamit ki ko ki ko faat moom tamit police en tout cas waa gendarmerie daal di génne communiqué pour wax ne ne daal na koy teg loxo et puis dimanche 22 mai tamit Xaban Dieng ca Diamaguène moom lañ ko daal di faate moom nag frère jumeau la Seexu ki nga xamante ne mbër la di Mama Lamine moom mooy moom lañ jàpp ne moom moo daal daal di euh, nekk ci <clears throat> ginnaaw boobu les crimes mu di kon benn week-end euh, comme ni ñu ko gisee soxna naata bi nga xamante ne il a été quand même très très macabre hein te mu précédé une série de meurtres tout aussi atroces ca Thiès ca Bargny ca Sanar ak yeneen euh, dëkk ci euh, ci réew mi loolu waral sax population yi bala gannaaw ba ñu choqué ci yile événement débat bi mooy lan mooy le retour vivement ñuy souhaiter le retour et l'application de la peine de mort au mmh. Sénégal soxna naata donc ci lool la ñuy nar a waxtaane absolument Marcel léegi dañuy tuuti ci nga xam ne moom moo jiitu euh, bañ fiy jëlee peine de mort en 2004. c'est ça donc euh, 2004 li ñuy fàttali mooy le 15 juillet 2004 plus précisément ci benn discours euh, ki fi nekkoon jiitu réew di maître Abdoulaye Wade daal di rek laaj solennellement euh, ñu daal di fi génne li nga xamante ni moom mooy la peine de mort au, au Sénégal et puis le 29 juillet 2004 conseil des ministres daal di examiner adopté tamit projet de loi ngir fexe ba abolir bi les peines de mort et puis le décembre président Wade daal di

6 ak 7 loi 1965 5 di stipuler que euh, peines en matière criminelle sont ou afflictives et inflammantes ou seulement infamantes euh, afflictive nag mooy li nga xamante ni day euh, dañ la koy teg ci sa ci sa yaram donc une benn punition boo xamante ni c'est en rapport avec le avec le physique et puis infamante bi nga xamante ni dafay lal en tout cas honneur wala réputation doomu aadama ji donc les peines afflictives et infamantes donc lan la mooy nit ki war dañ ko mën a mën nañ ko faat donc yoon mayee woon na loolu ak forcés à perpétuité euh, loolu mooy euh, infamante tamit et puis les travaux forcés à temps wala lu jëm ci euh, détention criminelle dans le chapitre premier en son article 12 il est dit que tout condamné à mort moom dañ koy dañ koy fusiller noonu lañ doon condamné ñi nga xamante ne c'était donc les condamnés à mort et puis les corps des ñoom dañ leen di livrer seeni famille bu fekkee ne ne loolu ñoom dañ dañ koy réclamer ñoom nag ñooy nar a toppatoo lépp li nga xamante ne moom mooy lu jëm ci wàllu inhumation sans aucun appareil loolu chapitre chapitre premier article 13 boobu les loi moom moo ko waxoon aucune condamnation moom duñ ko daan euh, def du duñ ko daan exécuter li nga xamante ni moom boo doon les jours de fête nationale wala religieuse ni les dimanches loolu ñu ngi ko inscriroon ci chapitre premier article 15 et puis lu jëm ci wàllu jigéen yi nga xamante ne ñoom dañ leen di condamné à mort ba pare mu ñu ñu amaale ñu wanaale lor et eh bien euh, s'il est vérifié que dañoo wan lor donc ñoom après euh, boobule étape lañ leen di exécuter donc après la délivrance de ces femmes là soxna Nata mm-hmm. ginnaaw loolu ci ñaari nit yi ñu euh, teg peine de mort ba noppi leen faat leen ci histoire u Sénégal yi. c'est ça démb Daouda Mine mu ngi ci doon euh, dellusiwaat doon wax ne ne euh, depuis adoption boobule loi en 1965 ñaari doomu adama ñoom la ko ñoo ko jot a dundu kii di Moustapha Lo ak Abdou Ndafa Faye Moustapha Lo moom mi nga xamante ne dañu ko accusé de tentative d'assassinat contre Léopold Sédar Senghor le 22 mars 1967 bisu tabaski la woon gannaaw cérémonie officielle bi nga xam xamante ne doon am ci esplanade du grande mosquée de Dakar et eh bien mu daal di jéem a euh, génne mu génne fetalam daal di jéem a euh, faat ki fi nekkoon euh, jiitu réew bi Léopold Sédar Senghor ñu daal di ko donc téye ba pare conduire ko au commissariat central de Dakar devant la barre mu daal di soutenir que intention rey ki di président Léopold Sédar Senghor waaye da ko bëggoon woon ne moom daal il n'est pas à l'abri nekkul woon à l'abri ci li nga xamante ni moom mooy vindicte populaire mu nag plaider

progressiste sénégalais au sortir de sa réunion donc avec le gouverneur de ko daal di jam paaka euh, euh, nekkoon fi chef de village ca euh, Gandigal dans l'arrondissement de Ngekokh ñu daal di koy condamné donc à la peine capitale gannaaw ba ko détenir à la prison centrale de Hann dans quelques jours de détention ñu daal di koy exécuté le 11 avril 1967 à l'aube c'était au camp Dial Diop Soxna Nata mm, et pour terminer Marcel contrairement gouvernement wu Sénégal am na réew yoo xam ne ñoom ñu ngi doxal euh, peine de mort ba tey exactement am na ay réew yi euh, ñu ngi koy doxal bu ñu sukkandikoo ci euh, li nga xamante ne moom mooy Amnesty International benn rapport bi ñu defoon atum 2020 nee neen téeméer ak juróom-ñetti réew daal neen abolir peine de mort ci walu crime yëpp am na itam téeméer ak ñeent fukk ak ti réew yi nga xamante ne ñoom dañ ko daal di abolir en droit ou en pratique soit donc plus de deux tiers des pays du monde dernier tiers bi moom ñu ngi ko localiser principalement en Asie Asie au Moyen-Orient wala sax ci réewu Afrique pays yi nga xamante ni ñoom euh, ñu ngi continuer di exécuter euh, le plus de condamnés dans le monde ñoom ñan la ñu mooy la Chine l'Iran l'Égypte donc euh, l'Irak et l'Arabie saoudite ñu gis na ne peine de mort nag raar na ci Europe ak ca Amérique yi à l'exception notable de la Biélorussie nekk ci Europe de Guyane Cuba ak États-Unis États-Unis mi nga xamante ne moom mën nañ ne que c'est l'un des derniers l'un des pays l'un des rares pays démocratiques si ce n'est d'ailleurs le seul à avoir à continuer d'appliquer appliqué euh, la peine euh, la Guinée la Mongolie et le Tchad respectivement en 2016 2017 ak 2020 ñoom ñooy réew yu mujjee euh, abolir la peine de mort et quitte donc à se demander est-ce que tey a juger les démocraties sur le critère parce que waxtu waa ñuy xoj ndax jàpp ni ñu indiwaat fi peine de mort Sénégal solution la ci nit ñi ñuy faat faat yu métti solution la kay. Hmm. ku rey ñu rey la. Hmm, ndax la buñ ko defoon léegi yëf wàññeeku. Ah, ah waaw bu dee ku rey ñu rey la rek léegi mbir mi wàññeeku te boobu du maanaam du lu nga xamante ne nii ay euh, la la la yaaya jàmme waxoon benn yoon rek laa mës a d'accord ak moom mu ni waa kii mu ngay rey man ma ne nañu ko rey ñëpp indil ma coow li xanaa moom ki mu rey du nit xanaa ki mu rey amul mboka baaxan du bakkan bakkan baaxan la. donc rey dañ la war a rey mu jeex tàkk parce que fi mu nekk nii li xew kenn xamul lu mu doon billaahi bu ñu indi woon peine de mort tegaat ko ci réew mi. crime en quelques secondes am na États-Unis am na am na ay état am na am na am na ay état fédéraux yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy. non parce que non je veux dire non c'est pour te dire que c'est pas prouvé que fu ñu appliquer peine de mort rek criminalité dafay wàññeeku mais Sénégal gi moom Sénégal euh, il est il est 7h40 ah di si moo di boo reyee ñu rey la dootu rek il est 7h40 malheureusement on a pas de temps pour waxtaan ci dem RFM RFM ñuy dalal tey jële Imam Seydou Diallo bokk ci ànd sàmm jikko yi ci ñaareelu pàcc bi dinañ ànd ak Abdoulaye Cissé ci loolu la ñuy waxtaan sax nag Alaaji Malick di nga ci mën a dellu siwaat waat mm-hmm. Alioune Tine bu Africa Jom Center moom mooy nekk suñu gan waaye léegi dañuy dem ca RFM ak Imam Seydou